asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziar maa leen di ziar bu baax a baax a baax a dama bëggoon ñëw ci journée démb bi am lu bëri loo xam dafa jaaxal ñu bëree bëri bëri bëri bëri bëri la fekk gendarmerie moom ci boppam demoon toj oto Ousmane Sonko ñu génn Ousmane Sonko ko ci cargo ko ba Ousmane Sonko ci ci cargo eh, gendarmerie bi du mom rek lañ ci dugul dugul nañ ko dugul nañ ko ci ak yeneen nit biñ leen dugulé ci cargo gi da moy auto blindé bi di leen yobbu keur Ousmane Sonko keur goor gi ci yoon bi defuñu leen dara dara dalu leen empoisonné wuñ leen defuñu leen leen Ousmane Sonko nak affaire bi jaaxal nako mom moom lool il n'a il n'a bien il n'a pas bien compris donc muy information bo xamné ba ci mom Ousmane Sonko information boobu da ko rëcc légui nak damay ñëw ci ben affaire bu ndaw pour ne leen dafa am benn division biir gendarmerie ak biir police période bii may wax ak yow waaw division bi lan la ak lu ko waral Macky Sall boo doon xoolee fan yële li ma leen doon expliqué ne leen dafa dem Espagne ñoom ñu commandé fa ay ka ay tenue euh, gendarmerie kaki yoo xam ne dafa sàcc dessin mil dessin tenue militaire yi ñu ngi bind ci ci euh, ci main gauche bi 3w gendarmerie point sn def ci poitrine bi logo Senegal. tenue yoy nak biñ koy jënd mo ngi andon ak ay mini bomb andon ak ay lacrymogène yu graw sax yu ñul andon ak ay mine ak ay arme à feu gagul ay dal source de sécurité de terrain ak yeneeni affaire mu nekkon benn commande bu defoon boo xam ne tonnes la woon biñ koy charger ñeenti nit ñu xonk ñoko ko ak ñaari nit ñu ñuul kenn nit ku ñuul ki mo doon filmé kenen nit ku ñuul ki moom ci ñu doon chargé la bok ñi jëli won commande bi bi ñuy dem jëluñu avion yoonu suuf lañ jël Maroc lañ jaar Espagne bi ñëmé ba ci yoonu Espagne bi entre frontière Espagne ak Maroc tok nañ fi di lek lañ nan pastèque pastèque ñepp xam nañ ko muy xal lima leen di wax ne nak ñom ña demone kenn ki moma ma vidéo bi ma seetaan ko à l'œil nu wat vidéo bu baax xoolaat image bi du image buñ monté bobu matériel yi ak seegut Sénégal bi ma commencé di relater information bi manam moy les faits xaw ci effort tuut ci weewu bay ci la doon leen nan Macky Sall commandé na quinze tonnes de grenade mais du quinze tonnes de euh, grenade commande bi moy quinze tonnes y compris les tenues les mini bombes les grenades chaussures de sécurité cagoule je les balles ak Les légui matériel bo fu ko livré won waxon na leen matériel duñ ko livrer ci base militaire duñ ko livrer ministère duñ ko livrer gendarmerie duñ ko livrer ci benn kër ils vont livrer ça sur un lien inconnu newoon len len quelque temps dem len arène nationale ngeen vérifier di ngeen fa fekk bagage yi def am ñu ne ma ci suñ groupe bi mouvement Liberté Sénégal que c'est bien vrai que livrer nañ fofu ay carton yu bëree bëree bëree bëree bëri waaye dañ defe ne ay grenade la may leen du ay grenade kese waxoon dañ di ci biir ten yooyu ñu ngi ko jagleeloon maanaam les mercenaires yi nga xam ne ni ñu ni ñu weex ñi nga xam ne ils sont euh, ils sont venus de l'extérieur plus les nervis ñu naan leen les munis de Macky Sall nga xam ne dañ leen recruter biir Sénégal pour ñu def njombe nga xam ne ñoom ñooñ ci boppam ñi ci rayon Didier Badji am na si des mercenaires yoo xam ne c'est des euh, élites maanaam des tirailleurs sax laay mën a wax hmm? ñu naan ko des snipers yoo xam ne biir gendarmerie lañ leen formé mais c'est des gens qui du sale boulot am si ñu si bokk ñoo xam ne ñooñu si ñu réew ak Fulbert Sambou ci lañ bokk duñ ci ñu ngi ci gang bi ba léegi am lu bees lu ci yokkuwaat mooy de euh, microbes yi nga xam ne gars yi ñu ngi leen jële Côte d'Ivoire boo leen xoolee biñ jàppee quelques microbes maanaam. les mercenaires yi nga xamni ne nañ leen bir Mali to Macky Sall leen don plaidel restant bi ñëw ci yokku léegi tëri yooyu ñooñu lañ ko jaglé jagleloon ak matériel yoy dem bo leen gisé gendarmerie toj auto Ousmane Sonko parce que ñooñu ñu ngi woon ci tunnel bi ñu bëggoon fa jaarlo Ousmane Sonko Ousmane Sonko bañ Ousmane Sonko biñ kee naan jaaral ci tunnel ci suufu tunnel bi boobu ñooñu nekkuñ sax ci suufu tunnel bi wax ji nay leer bobu ñooñu ñu ngone ci kaw tunnel bi di xaar ci digi tunnel bi gendarmerie nekk ci kanam Il duggee ci bi gendarmerie comme dafa am division am ci ay patriotes ñoom mënuñu Ousmane Sonko il fallait ñu escorter bu këram forcé forcé affaire bi Ousmane Sonko nangu jaar ci ak otom Ousmane Sonko tunnel parce que Ousmane Sonko dafa tunnel il n'avait pas bien compris bi muy tunnel bi la commencé wàcc gendarmerie ak ba léegi mais n'empêche gendarmerie ba des ci ay ñu ngi Macky Sall Ousmane mais calcul les nervis de Macky Sall bien équipés bien armés ils ñoo sol tenue bleu yi wa tenue bleu yi nga gendarmerie la yu bleu xawa euh, blanc euh, très militaire la ñooñu ñu ngi woon ci ci kaw ci kaw tunnel bi moo waral bi Ousmane Sonko di wàcc ñooñu avancé waat ñëw ba jàkkaarloog sorti tunnel bi di sànni ay lacrymogène foofu nag Ousmane Sonko bu avancé woon tuuti ak otom génn ñoom était bien placé ak seen sniper pour wàcce Ousmane Sonko te dañ ko naroon assassiné rey ko rey bu gaaw comme liñ def maître Babacar Seye ne mes ne menten kenn dootu leen gis parce que démb lañ amoon pour profito gendarmerie ci la jaayanteeg ñom koj Ousmane Sonko ci sorti tunnel bi bala nga génn tunnel bi non ci souf ñu duggal seen auto gaaw encercler Ousmane Sonko dak sécurité am sécurité nak ils ont bien fait euh, demb liggéey nañ bu vraiment def nañ liggéey bu rafet mucc ay parce que Ousmane Sonko bàyyi ko ci biir auto bi tej auto bi sécuriser les portes même des gendarmerie ci lañ toj vitre bi parce que ils savent très bien que Ousmane Sonko il n'a rien compris te ils peuvent pas vraiment toog di euh, nu ñu koy waxati ça am lu ñuy expliquer Ousmane Sonko ak presse bi leen wër ak gars yëpp bu leen enregistré ça peut leur euh, mettre en danger ñom ak seen famille il fallait ñom ci seen bop ñu def ko dans la discrétion baña communiquer Ousmane Sonko bañ ko wax dara aussi ci manam li tax ñom seen bop ñuy assurer sécurité tay to te mosuñu ko assurer sécurité parce qu'il y avait pas mal de défaillance seen biir ñooñu c'était des personnes engagées des patriotes Ousmane Sonko bu leen euh ñaanal na leen ñaanal du jàppale leen mais seen biir ñak amoon na aussi ay imbécile yu nekkon seen biir biñ défé nonu ñu génn Ousmane Sonko. ñi mu àndaloon am ci am ci ñoo xam ne jël nañ leen boole leen Ousmane Sonko dugal leen ci kar googu gendarmerie bi nga xam ne oto blindé la yóbbu leen ba kër Ousmane Sonko n'empêche doomi xaraam yooyu toppaat nañ leen boo leen gisee Ousmane Sonko bi mu taxawee buntu këram dafa mel ni dañ ne ko dawal dugg ci biir parce que ñooñu ñu ngi doon tiire euh, ay munitions yoo xam ne c'est trop dangereux même pour noyyi ko. te boo xoolee ñoom ci seen biir am na ci biir gendarmerie dem xool leen baax xool leen baax leen am na ñu ci solo ay masques yu ñu ay masque a gaz parce que ñoom arme yi ñuy tiir yi ñu doon tiiri dem baaxul pour ñu noyyi ko man Sonko ci la daw dugg biir këram ma xamal leen ne ñoom pareeguñ parce que képp kuy allié Ousmane Sonko ñoom danañ la éliminer parce que ñoom xam nañ fi ñu jëm ñoom ñooñu waxuma ñu tëj leen bu Macky Sall wàccee à vie mais fi mu ne nii. xam na ñu naan ku bëgg a dee wala ku xam ne day dee te xolam tàlliwut day day wër kum yóbbuwaale actuellement mooy li nga xam ne moo dal Macky Sall ak nguuram lii rek laa leen fi doon indil maanaam di leen di leen leen ko leeralal di des xam naa bu neexee yàlla suñ borom fii ak ngoon naa leen indil yeneen explication yu gën a leer lan mooy plan Macky Sall lan la ñuy programmer parce que comme dañ nekk ci résistance aussi. j'ai une part boo xam ne les jeunes aussi war naa leen jox seen wàll xam naa dañuy euh, def noon ba ngoon incha allahu rabbi su ma amee jot naa leen gën a préparer li des bu ko defee ngeen gën a xam li gën a xew Ousmane Sonko moom itam mu def euh, très attention ànd ak prudence lépp lu muy def bàyyi les jeunes ñoom ñu génn def la job sur le terrain wasalaam.